solo ndax nee na 60 euh, morts yi nga xam ne ñàkk nañ fi seen bakken ci manifestation yi fi jot a am ci 2021 ba 2024 loi d'amnistie bi dañ ko war a abroger te tamit Abdou gis nga am nañoo ñoo koo xamante ne man dama dama am métit boobu ba léegi muy livreur ba ñu ba auto nervie euh, fiiroon fii ci parcelle Assainies assisté wuñ ko sax jàppale wuñ ko sax yóbbu ko hôpital dañ ko romb noonu bàyyi ko kooku dafa ñàkk bakkanam te soutien de famille la tey jii nii est-ce que war nañoo mën a loi si boobu raxas fee yooyu yëpp ñu bëri ñàkk si si ñoo xam ne seen i doom lañ ñi ñàkk si seen i jëkkër ñàkk si soutien famille yoo xamante ne tey seen i njaboot ñoo ngi leen di jooy ba tey est-ce que war na tax ñu tënk benn loi boo xamante ni rek day raxas fee yooyu yëpp euh, ba nga xamante ni euh, mënuñoo xam ñan ñoo def anam bi waaw maa ngi sant yàlla bu baax ba ñàkkuma ci mbokk ñàkkuma ci xarit ñàkkuma ci àndandoo te ña ca dem genn wàll gi xeexaluñu woon seen réew képp ku ne nag dañoo jógoon pour manifestation ngir seen réew li nga wax amul xeexaluñu seen réew de benn waaye tëdd ba xaaju guddi daal dem ci bërëb bu mu wërta dem ñu porté ko plainte mu ne leen génn leen ñu génn lii moo ko sabab amul leneen képp koo xam ne sax looloo sabab sa génn xaru nga bu doon ceeb lañ yokk courant coupé ndox a kii démocratie lañ salfaañe nga génn voilà sa réew ngay xeexal ok mais benn waay daal la taal otoom dem fu mu wërta dem ñu porté ko plainte ni ay moroomam mu ne déedéet génn leen ñépp ngoo xam ne nag kàddu googoo leen génne damay préciser nag koo xam ne kàddu Ousmane Sonko googoo la génne xaru nga wax la waru woon a génne ndax ba muy dem tàgguwu la Aminata Touré nag waxi daawam ak waxi renam daa bokkul keroog ba mu taxaw toogee seesu APR def di def conférence de presse lan la waxoon Ousmane Sonko woo xale yi ci mbedd mi ñu dee tey mu ne bu dee président moo tax moo yey mu préciser ne bu fekkee moo tax mu utiliser moo conditionnel bu fekkee président Macky Sall responsabilité mu ngi ci voilà loolu nag jar naa préciser xam nga la moo ci responsabilité président Macky Sall ba Ousmane Sonko wootee mortel combat ci guddi gi lañ ko waroon a yeew yóbbu ca kaso ba ku génn ñu duma la àtte ko comme ay moroomam bañ ko bay bayalee ba mu taal dëkk bi loolu moo ci responsabilité Macky Sall mais amul beneen responsabilité bu ci Macky Sall yor caaxaan moo baaxul. loi amnistie bi nguur gii fi ne ak Macky Sall mais ñoo ko waxtaanee ba déggoo ko woteel ko seen bopp ñi ñuy wax nag naan ay vidéo ñu yëg ci pick-up police vidéo yëpp dañ ko monté jox ko France 24 muy diaboliser sénégalais yi di di yàq di sos 14 euh, personnes yi njëkk dee 9 rapport autopsie yëpp dem leen police ngeen ñu jox leen ko ngeen liir ko 9 yëpp arme balance a leen rey cinq yi ñoo laa laaleeg bal bal bi kenn xamul fu mu jógee. kii ñu dóor bal Parcelles Assainies ñuy gis deux palan la dañoo gis ku tiire gis ku daanu diggante bi am na lu ñu fa génne régime bu ay ci manipulation ñoo doon opposé jamono boobu ñu doon opposé fii ñun dofuñu de Parcelles Assainies ku dee ci biir Auchan ba barada fer dañ ko dóor ci bopp Parcelles Assainies am na ku doon jaay carotte yor saag bi paaka lañ ko jam ci faar gi jël saagam ba dañ ko agressé am na ku ñuy wax fii ci yëmbal ñuy wax Baye Seex mais ñaari version am na ci de am na ci kenn ci membre famille mi nee na ba ba nee na kii ko rey arme blanche ñenn ñi ne bal xaw ma bal lañ ci war a gëm de toute façon rapport yëpp mu ngi ci table procureur procureur nag bi mu génnee def conférence de presse dane li fi am yëpp Ousmane sonk la kon nag bu ñu dindee loi bi moom Ousmane Sonko direct prison lañ koy yóbbu lijjanti en attendant ñuy xam man Belia keneen ak keneen lan lañ ci loolu mooy première wax ci parce que nag crime bu amee ni ma ko waxee woon fii suspect bi la ñuy téye yow mi buñ la joxoon dossier bi suspect bi ngay wër ba pare doo ko wër ñi ci des suspect na mag moo am sa kër bu ñu fa sàccee yow boo ñëwee da ngay xool kan mooy suspect ci kër gi kan nga fi bàyyi woon et cetera problème bi am nag mooy mortel combat bi Ousmane nga ko wootee la tax mu woote ko du courant bu seer du dund bu seer suite bu te la dem nday xadi nee na da koo jaawaleeg Imosène ñëw ne dafa ñëw pour faju ñu porté ko fa plainte dëgg la mën na dem layal boppam mais moom moo ne ni ñi leen ngeen xeex ndax Macky sàll li tàmm na ko defoon na ko Karim Wade defoon ko Khalifa Sall alors ko ci ñee de deniers publics la yow mërs de choses différentes ñoom Khalifa woote wuñ mortel combat ñoom Karim wootewul yow daal bi nga xam ne ci sa bànneex nga jugoon ci sa teeyu bakkan du chauffeur du garde corps du jabar du doom kenn yëgu ko nga dem ndànk ñu jiiñ la fa loolu yow nga ne ah Macky Sall la say gone jóg di jaay yëfu reewande di taal alali jàmbur gisuñu fi nag benn policier bu taal Auchan dañ waxante dëgg gisuñu fi benn policier bu taal oto jàmbur gisuñu fi policier bu taal Kër Matar Ba policier yi daal dañ doon wattu kaaraange ak réew mi te attention nag Sénégal la de walla la xasim li fi xewoon mars 2021 mais Abdou Nguer bu ma dog fi ma nekk fi ma nekk bu ma eh, dog xaaral xaaral xaaral ma la bàyyi foofu yow ñi nga gisoon fii ci manifestation yi nga gis ay nervi yoo xamante ni nii ay ñu ngande bay bëgg a dee mu leer la ne ñii nekkuñu nekkuñu si duñu policier duñu gendarme mu leer la nañ nañi nga gis ñoo xamante ne ay vidéo la ñu yor ay arme di tirer normalement mel ni ku yor ay ma yu ñuy tiire yow nga ne yow ci réew moom ñu nekk euh, police da doon def liggéeyam normal. genn wàllu video yooyu nga gis yëpp dañ ko am monté gis nga waa Pastef ngeen war a. xam ñooy monté. xaaral ma may ma bu la neexee nga contesté. genn wàllu vidéo yëpp dañ ko monté préparé ko bu yàgg nañ préparé woon vidéo yi ci élection 2019 nañ ne xale yi ñooy wote Fuuta Pastef dama leen a xam Pastef gii dama leen a xam sénégalais yëpp mënoon nañ toog bàyyi maag waa Pastef ma jàkkaarloog ñoom lu ñu teg bu ñu bu ñu xëyee fii ma teggi ko eh loolu yëpp ngir salté deru police gise police de Sénégal yi yeneen réew yi ñu wër Afrique benn jour ngay manifesté wu ñu rey 40 police yi dante ñaari bakkan rek bari na maintenir nañ manifesté wu fi deux trois ans ferme yoo xam ne chaque jour ñuy taal dëkk bi ñaata nit lañ ñoo ci gaañu soixante et quelque bari na de par rapport ak yeneen réew yi ñuy wër police Sénégal ngay gis police bu yorul fetal ñi ñu ordre ñu yor fetal yow police bi ñu téemoon parcelle di ko dóor birig bi moom xanaa ab policier ko doon dóor birig bi pourtant mu ngi armam de mais nee na ful bii ñëw li mu gis ay xale mineur moo tax tiirewu leen loolu ko rafetlu. ñu bëgg a harcelé rek ci kaw police ak gendarmerie wuyu yii di waa Pastef ñoo doon taal dëkk bi nañ wax dëgg gi. les livreur bi doon livré ji rek. man de ki ma gis ki ma gis du livreur ki ma gis oto bi fel ko xam nga kan la woon. xaaral wax la ki ma gis oto bi fel ko ku doon sànni xeer la ay moromam daw mu daw daanu. tarxiis man de kooku laa gis gisuma keneen waaw yow loolu nga gis mais kooku ñëpp xam ni livreur la man ah, bu leen neexee def ko livreur da doon livré xam nga fii moom ku fi dee ñu def la almuda jàngkatu alxuraan juggikatu marché sama yaay ma yoonu boutique ba yooyu rek ngay dégg kenn manifesté wul daal ci ñi dee ñi dee daal kenn manifesté wul ñëpp sama kër laa toogoon sama néeg man mi toogoon sama kër kenn jàmm ma sama doom bi ma téewoon këram kenn jàmm ko samay xarit yi toogoon seen kër kenn jàmmu leen samay doomi nijaay yee kenn jàmmu leen samay doomi bàjjan nee naa la sama benn mbokk deewu ci parce que ay ñun ay républicain lañ du ñu génn ci coowu mërs man génn naa taal naa puno mais taalu ma ko ci coowu mërs coupure courant taal naa ci régime Macky sàll bii ngay gis nii coupure courant taal naa ci puno génne naa ci ay école dem ba ca gouvernance Kolda xam nga lan la coupure courant la woon ñu opeere nit mu desee décédé hôpital loolu moo ñu taxoon a jóg ñu ne coupure bi dafa war a dàq ñu dem ba ca gouvernance ba xeex nañ ko waaye gis nga punkal mu tëdd ba guddi bàyyi sa ñaari jeeg dem ci dem ci bërëm ñu porté la waxuma la sax boo demoon ca jàkka ji ñu porté la plainte sax du ma la xeexal waxuma la nag nga dem ca salon de beauté gis nga caaxaan baaxul Aminata ture nag moo ñu war a respecté jox ñu cër daaw mënoo toog fii nga ne Ousmane Sonko moo génne booy ñu dee ren nga toog fii naan bu dee Macky Sall la gis nga xam nga man lu tax man samay wax du neex mooy dëgg fu mu ma fekk dinaa ko wax. deux mille 2021 ba daal ba deux mille 2024 dëkk bi ñu ko doon taal parti Pastef fa leen doon woo ñuy génn ñoom la su ñu dindee luwaa bi nañ leen delloo ci kaso bi ñoom ñëpp ñu enquête continuer enquête bi instruction yi continuer suñu paree àtte leen. ku ci nekk responsable ñu daan la and fi may jeexale nag yàlla mooy àtte ñu deewut bërki démb benn borom jakarta moo ma yab cag-cag may dem police suñu benn booy buñ téye woon ci guddi gi ñuy waxtaan ci affaire bii ñuy waxtaanee xam nga lu ma wax mu ne ma gannaaw neuf mois laa tëdd mu ne ma nag gis nga bu ñu bu ñu bu ñu waxtaanul woon ñun ñëpp dix ans lañ ñuy tëj yàlla xam na ne baat bi la ma wax laajuma ko nag loo def waaye baat bi ma wax moom am na lu ci sama xel dem mooy ku deful dara nañ lañ tëj dix ans mu ngi yor benn cag-cagam nii di dawal kon nga xam ne mbir mii lees waxut ak ja Ousmane Sonko la même chose la wax bi mu génnee da ne basiiru Basirou suñu waxtaanul woon ku ne bu beneen bu weneen politicien ñëwee jël réew mi ku nekk 10 ans la leen di daaj <laughs> ah, ku deful dara dinañ la tëj 10 ans caaxaan baaxul de biliard. Hmm. loi bi daal jàmm ji xam nga mooy lan ba waa Pastef fa ko moom. loi waa Pastef la kenn moomu ko mag Sall moomu ko APR moomu ko moomu ma ko te bu ma sañoon mu deñ tay tay tay tay tay tay jii. waaye nag Bassirou bi mu ñëwee approché na décret yu bari waaye loolu moom waxagu ci te ñu ngi ko ciy xaar. ci loi d'amnistie bi. waaw. yàlla baax na Bintalaay mhm. euh, bu ñu bu ñu jàllee foofu dañuy dem rek ci insécurité bi am ci réew mi. Mhm.